salon seen Pharma dafay dajale ay borom xam-xam yu yu bari ñoo xam ne ci domaine nu santé wér-gu-yaram ci lañu ñu bokk. Euh, seen Pharma boobu li tax mu amal ñu njariñ en tant que ministère de la santé et de l'action sociale daje la euh, taxaw seetlu la boo xam ne borom xam-xam yooyu dañ fiy daje ku nekk indi sa xalaat ku nekk indi expérience ba nga am ku nekk indi la nga dund. ku nekk indi euh, yu yees yi nga xam ne jëfandikoo ko ko wala gis nga ko wala découvrir nga ko daje yooyu li muy jur mooy bu ñu waxtaanee ba noppi mu am ay tegtal ak ay yoon yu ñu jox gouvernement bi pour ñu mën a continuer jubal ci lii nga xam ne mooy souveraineté pharmaceutique euh, boo xoolee li leen ñox li leen ñor li leen soxal euh, xëy na pharmacie la mais santé la de façon globale te gouvernement bi li nga xam ne mooy mission nekk objectif am mooy sénégalais bu nekk ak foo mënti bokk ak noo mënti toll ak foo mënti dëkk ñu fexe ba boo boo amee euh, gàllankoor ci sa wàllu wér-gu-yaram ñu mën la jël en charge wér-gu-yaram nag ay tabax la ay hôpitaux la ay nit la yuy faj ay équipement la wante surtout garab la garab moom la ñuy jox ki ñuy faj garab boobu nag dafa war a am lu ko encadré dafa am lu ko aar lu ko lu ko wekk lu ko lu ko ñoŋal ba nga xam ne duñ ko bàyyi mu nekk ci Euh, jaxasoo Bo a kenn du xam fan lay waral réglementation depuis 2022, Sénégal a une agence de réglementation pharmaceutique agence Bobo, li li rôleum moy fexé ba bala ben garab di marché bi ñu xam pharmaciens yi ba lañuy officine produit bala ñu ci contrôler marché bi am neuf fonctions réglementaires directeur général kàddoom euh, jaar na ci yooyu yëpp nag buñ ko boolee mooy euh, li nga xam ne mooy encadrer véritablement mbir mi ñu waxtaane ko waxtaane ko ak ñi fi daje ñëpp pour euh, question santé yi nga xam ne intéressé na véritablement les sénégalais ñu mën ci indi ay saafara mën a proposer gouvernement bi ay yoon yoo xam ne mën na ci jaar pour mission de santé publique bi nga xam ne moom la gouvernement bi am ak souveraineté pharmaceutique ñu am ci ay yoon yoo xam ne dinañ ci mën a yóbbu